kenn ku xam ku mu si jaar ku bëggee noonu rasulaay ku sëñ ba amul kon ni mu bëgg rasulaay jox ko dundam jëm ndax daani ilaa xaqi nabi xubbu zaati daani ilaa xaqi nabi xubbu zaati nee na tagg gi mu koy tàggat bëgg gi mu koy bëgg ak lépp man damaa bëgg jëmam rek tagg gi liggéey bi yëpp sëriñ Tuubaa bëgg jëmmi rasulaay moom laa noonu mel nag ci rasulaay noonu la sëriñ Tuubaa mel ci moom sëñ baara dafa natt natt ba xam ci sëriñ Tuubaa teg Rasulaay mu teg ko sëriñ Tuubaa moo tax sëriñ Tuubaa def ko defal ko la ko Rasulaay defal defal ko xusuusiyatu boppam mooy jagleel boppam ndax boo leen jabar sëriñ Tuubaa bi moom moo ci njëkk gën a àddina Tuubaa te loolu jagleel bopp jagleel boppam la loolu jagleel ndax Tuubaa lu réeréer la Tuubaa lu réy benn baat la ci alquran benn garab la ci àddina ci àjjana benn yoon la ci alquran benn garab la ci àjjana benn pàkkal ci àddina benn sëriñ ko tudd tuuba genn garab la ci àjjana benn baat la ci alquran genn garab la tudd benn sëriñ ko tudd benn pàkkal ci àddina tuuba googee la sëriñ bi wax ni wa jannatan lisaali muridi wa jannatin an haakil mali وحجة لمن يريد أن اهتدى وحجة على من ما اهتدى طوبى لعبد مريد سائل له بخدمته أو بحب أو هدية lu lépp suñu borom def wax na ko ci Touba bu gii Touba bu gii suñu borom defal Serigne Bara ñii ñu waxtaane xalaat yàlla jamono te keroog lu rëy ñëw na lu rëy ñëw na ndax xar baax moo njëkk a fee lu jiitu lu jiitu gën a jamono ji maam Cheikh Fall moom boobu la koy defal nga dikk rek ah doom tey du naaj yaaram mbay tey naaj ñu génn ah faam tax yaa naaj ñu génn mu ni sëñ Bamba day bëgg am gan gan bi daal jël ci tànk ci ci jant moo tax tey du naaj bisub keroog naaj ba tey keroog bisub keroog la sëriñ Baara gën a jamono ci la sëriñ Tuubaa woo ñeenti yooyu yeer ni yàlla gërëm na li gën a tuddee ma sant gan gi ñëw andaale na seen andaale seen seen seen gërëm kon sëñ Bara bu mu dikkee rek leen xar baax bu boppam ba noppi itam bi ñu yéeme nag sëñ Bara di jëm joo xam ne yéeme na xam ne yéem na waa jamonoom yéem ku mu jamonoon jël yéemal murid yi yéem mag ñëpp nga xam ne képp ku mus a jëflante moom moom sëñ Bara ku mus a jëflante moom dina jëflante yow te boo ko déggee ay néer ne saxal ci moom rek lay nekk loolu ci may sin baar la bokkoon ku mu sa jëflantee di nga ko yéem yéem goo xam ne boo ko liggéey saxal ci moom rek lay nekk loolu ci may la bokkoon yéem ñëpp képp ku mu sa jamante yéem na nga xam ne ba mu ci yéem sax njabootam sëñ Tuubaa jëm bokk sëñ Tuubaa sëñ baar la yéewu sëñ baar dafa mujj yéem njabootam sëñ Tuubaa jëm bokk sëñ Tuubaa ba njabootam sëñ Tuubaa yi mujj ñoom seen bopp jël seen xëy na ñu tagg sëñ njabar suñ tubaa gi ñoom ñëpp kenn ku da ngaa mu jël sa xalima di tagg sëñ baar sëñ fàlloo njëkk a tagg sëñ lu mu ko wax jëm ñu toll sëñ fàllu ko wax laa yujaarika fi midaani min aw fi l juudi aw nasabi yow mi takk naxasaayu ngir bëgg wëri ku mel ni sëriñ baara sëriñ fàllu nee na tooga doo ko gis doom gis ku mel ni kemam ku mel ni sëñ baara doo ko gis ci xam-xam ci lewet ci kere ak askan wu rafet fil ilmi ci xam-xam doo ci gis doo ci doo ci jot ñu baax ci fil ilmi ci jot ñu baax mukk aw fil lewet mën na ko jot ñu baax aw fil juudi baax tamit aw fil nasab bi aw askan wu rafet suñ baaraa gënal ko ne njariñ la wax nañu danaa ko joxe di joxe di joxe ba nee nañ bu amulum joxe day fat suñ baara ba fatoo rek lam doon la luñ joxe ba jeex kon aw fii juuni ba aw aw fii nasal ba askan la suñ baaraa gën a rafetu askan suñ baara moo gën a rafet ak càllale suñ baara moo gën a rafet wàccuwaay suñ tuba wàccuwaay bi ma suñ tuba moom ba dina am ku am dina am ko wax suñ baara suñ baara wàccuwaay am suñ tuba moo ko njëkk am te képp ku am dina am ko xam ndax lii ma leen di wax suñu baaraam te bëri ñu tax kuy sa baay sëñ Tuubaa rakk sëñ Moodu Mustafaa rakk sëñ Moodu Mustafaa sëñ Fall jarbaam ci ak loolu daal juddoo Tuubaa yu tudd la yéen a waaw xoolal bi wàcc waay bi rek kuy sa baay sëñ Tuubaa rakk sëñ Moodu Mustafaa sëñ Fall jarbaam ci ak loolu daal juddoo Tuubaa aw ñuy juul ba tege aw nasari askan wu rafet kenn taxul suñ baara askan wu rafet kenn taxul waaye suñ fa tagg yooyu mu tagg suñ baara dafa dëgëree wax suñ tubaay suñ tubaay njëkk tagg suñ baara suñ tubaay mooy njëkk tagg suñ baara suñ fàllu kon tagg yi mu tagg suñ baara dafa dëgëree wax suñ tubaay yi suñ tubaay njëkk tagg suñ baara lu mu ko wax suñ tubaay ko ni ko baaram ko mbaatam ko toogal Muhammadu Rasulullah jóge fi léegi nee na sa borom nee na sans intermédiaire sans commentaire yonent bi jóge fi léegi sa borom nee na Sëñ Tuubaa wax da dul ku ndaw ay waxam day rëy mbindam day rëy ay jaaleen dañuy rëy du wax lu ndaw mukk yonent bi jóge fi léegi nee na sa borom nee na faalam bi annaka yaa Muhammad sa danaalu maqaama yuxbiruka min jamii amsaalik wa anna kulla man ma'aka laa yaraw illaa maa yasiru fi dunya wal aaxira wa yadxuluuna al-jannata bi xayri hisaab mu tey ko ñun haada min allaahi ilaa rasuulihi ilay Sëriñ Tuubaa ne ko baara xama ni lakk nga ci maqaama loo xam ni ku dul yow amu ko ku dul yow am na yóbal xeet dina la ñee te képp ku ànd ak yow ñi ànd ak yow di say gaal yi duñ gis lu naqari fii duñ gis lu naqari fee te daa ñu dugg àjjana te kenn leen xisaab loolu wax Sëriñ Tuubaa la lay def daal nii فاعلم خمل بانك يا محمد ستنال مقام يخرج في جميع انسانك وان كل من معك لا يرون الا ما يجدون في الدنيا والاخره ويدخلون الجنه بغير حساب هذا من الله الى رسوله اليك loolu suñu ci baaw na nga xam ni lakk ci maqaama loo xam ni ku dul yow amu ko te képp ku ànd yow du gis su ko dangal fii du gis su ko dangal fii te dañuy dugg àjjana dinañ dugg àjjana kenn na xisaab mun ko lii yéen yàlla Muhammad moo fi ñëw wax ma ko léegi ñu yàllaa ma ko wax ma yegg dama hada lii min allaahi te yàlla la ilaa rasul gaa ci yeneen min ñi ñëw ci man ilay dafa xam suñ baara bu ndaw suñ baara bu ndaw jaayante Rasulullah jaayante Sëriñ Tuubaa rek jaayante boo xam ne it bi xawal wal fi'l jaayante Sëriñ Tuubaa bi xawal wal fi'l nga xam ni wàccu waay bu rafet moom sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa ak ak tànn xam-xam beeg càllale bu rafet boobu yëpp dafa jël yooyu yëpp jaare ko jënd ko taalibe sëriñ Tuubaa di ko sant bi sant taalibe bi ko taalibe bi gërëm ma leen baax ndax wàccu waay bu rafet boobu loolu yëpp loolu yëpp dafa yóbbu rek comme jaare ko sëriñ Tuubaa ci ci xaw loolu jaay ndax sëriñ sëñ Bara jaare ko ci xaw li mooy njaboot sëriñ Tuubaa yëpp mooy ëpp lu mu ba demee xasida yi nit gaa yi jàpp ne sëñ Tuubaa ko taalif mbindum mu taalif xasida yi sëriñ Tuubaa gën a ko tax ci wetam lool danaan baaraay man tamaay moom baaraay moom lu ko neex neex na ma lu ko naqari naqari ma baara lenn lu lenn lu wutale ma ak moom day ñaan ko du mett su yàlla su mel ne yàlla mooy ci lu meram baax waaw day ñaan ko du mett te su meree yàlla la kon ma yëg dina baax